Is it music everything? voilà chers amis téléspectateurs nous avons maintenu ñi école Aplex Aplex il est connu sur le nom de baïgana Kébé avons une euh, école d'excellence pour maintenir les filles à Thiès euh, à travers ses résultats li de def ci Thiès mi ngi innové nekk exemple pour maintenir vraiment euh, engagement am détermination euh, ki nga un directeur M. monsieur Moustapha Lom plus connu sur le nom de Igo vraiment mi ngi abattre un travail colossal bu mucc ayib lay def également fi à Thiès. voilà comme vous le voyez ñi ngeen gisee gi moy euh, école basirou Mbacké ñom ñoo ñew tay ak li nga xamanteni équipe nationale bu Sénégal euh, représenter vraiment dignement école bi nga xamanteni mom école voilà ba légui nak défilé bi nek na défilé bu ayib franchement waaw nek na école de aussi. Euh, nit ñi xam nañ ko ci ay résultats am yu baax yi muy def waaw ñu ngi noonu waa école collège aussi Saint Gabriel bu Thiès ñu ngi noonu ñoom tamit habillé wu en pantalon bleu ak chemise bu bleu ciel ñoom ñoo ñëw ni école Saint Gabriel waaw vraiment li nekk na défilé bu rafet bu mucc ayib macha allah.

Euh, vraiment euh, lii rafet na c'est à saluer wa coïncide ak li nga xamanteni duñ ko faté diko wax mukk moy sunu 63e édition waaw sunu sunu fête de l'indépendance bu Sénégal. ba tay ñu ngi wat fi rek ak ñi nga xamanteni moy wa waa EPT école polytechnique bu Thiès ñi ngi ni deug deug def tout noir gants yi nek yu weex chemise bi ñu ci biir ci bir nek chemise bu weex également def défilé bu mucc ayib.

partout dans le monde entier nous ma mission dans mission ndeysaan ba sunu en dogal tey ñu avons ci li nous avons mais nous ñu Nous de les anciens combattants ak ay bureau baxa nous Adama Adama nous deug deug moy ñew non di dom ci famille nous également ñoo nekk ni di teugal li nga xamanteni moy majorité aplex waaw nous wax wax Adama wax wax wax famille bi yëpp ndeysaan li moy Aplex mais en fait ñu ngi nuyu ñi nga xamanteni moy autorité autorités yi nekk ci ko tribune bi di len jaajëfal ñom gouverneur ñu ngi fi préfet mi ngi fi commissaire mi ngi fi ñepp ñu ngi ci ko tribune bi tay défilé bi ñu gis ni tay daf ñu mujj sax jaaxal ñun ci Ceesuwaay yi ndax deug deug li gën na fee am wa ndeysaan c'est ça le Sénégal li na da fay wone notre accession wala li nga xamé à la souveraineté internationale li mom makoy wone tay ji mu nekk nak sunu 63e Euh, anniversaire bi ñuy fêté muy feetu indépendance bu Sénégal 63e édition baa ngi nii waaw ndeysaan xoolal ma majorité yaa ngi ñëw waaw lii ndeysaan rafet na lii ndeysaan rafet mu nekk lu mucc ayib waaw waaw ndeysaan wéetu ji benn yoon dañ ko jàng ba mokkal ko moo tax li am waa di ci jaajëfal également li nga xamante ne mooy madame Anta Ndiaye moo ngi àndoon ak ñoom ak madame Binta Gueye ndeysaan moom tamit mu ngi ci def liggéey bu am solo ànd si ak ki nga xamante ni également mooy madame Matul Matilom Matilom moom tamit ndeysaan mi ngi ciy def liggéey bu am solo waaw lii moom c'est le grand tambour-major waaw Adama Diak mi ngi noonu ngay seet muy dem ah ci doom ji ma ngay Diak mi ngi noonu mooy tëgal xale yi mu nekk loo xamante ni également lu mucc ayib la lu mucc ayib a ngi noonu waaw ndeysaan ñu ngi leen di kontaanee bu baax a baax waa def na résultat bu mucc ayib dëggal li nga xamante ni mooy baccalauréat waaw baccalauréat dañ cee def lu am def lu am solo également ci BFM ñu ngi ko àndal nag ndeysaan du ma fàtte di ko wax mooy madame Anta ndax Ablex tey su génnee président de la république kenn du ko weddi tey su génnee ki nga xamante ne mooy ministre kenn du ko weddi ndax xarañte ga fa am njàng ma fa am moom mi nga xamante ne mooy directeur bi dañ ko jàppee xale dañ ko jàppee kon seen baay bi leen jur waa ndeysaan loolu mooy def la différence bi nga xamante ni mooy Ablex ak yeneen écoles yi nekk fii ci diwaanu Thiès ak li ko wër

ndeysaan ay doomam ñooy tëgg noonu ñoo ko jàpp foofu ci gaam mu nekk lu solo waa xoolal kii di jàppante noonu ngay gis kii may ma ci loom ndeysaan moom moo ànd xale yi ànd ko ki nga xamante ne mooy Anta ñoom ñëpp ndeysaan liggéey ci liggéey bu doy waar gis ngeen weeru koor la mais xale yi dañ daan dem 16 heures lañ daan dem li nga xamante ni moom may répétition nekk fa ba 19 heures wala 20 heures ànd koog ndeysaan le grand tambour major ndeysaan waaw

Modou Fall Thiathio lii ki mu doyul dara dootul day Thiès dëkku culture la Thiès dëkku teranga la Thiès li la xam deug la bo xamante bu théâtre ñëwee ñu ni ñom la su musique ñëwee ñu ni ñom la su fecc ñëwee ñu ni ñom la li dara fay ko mbokk yi ndaysan li moy aplex ndaysan academy Baye Gana Kébé waaw waaw ndaysan li am na solo sama gaay yi waaw ndaysan dañuy wax ni ko dombu mom jangane jànganewul ndeyam mo roy kayam ñom ñi nga roy ci ñi nga xamante ñoy ñooy waaw waaw ndaysan ak madam Anta ñom ñoo ndax xalé yi doon seen yaay doon seen ay tante doon seen ay mag di leen gungé ci liggéey bi ñu nekk ni li so gisé mouvement d'ensemble bi xalé yi def mo la wara won ni li lañ ko répéter ta répétition bu yaga yaga yaga lool la mo tax ndaysan gisoo ci fenn faux raccord xale yi fu ñu teg seen tànk foofu la ànd koog le grand tambour major nag dëgg-dëgg fu ñu teg tànk rek xam na ko ndeysaan waaw waaw. di leen jërëjëfal waaw ndeysaan di leen jaajëfal bu baax a baax a baax a baax liggéey bi am na solo. ndaysan indi nañ slogan nga am solo bobu nonu de ngeen legui li xale yi wax. waaw ndaysan ñu ngi jaajëfal ñi nga xam force de défense et de sécurité mom la xale yi wax ndax dégg nañ ko sax demb ci li nga xamanteni mom moy mooy discours chef de l'état monsieur Macky Sall bi mu génnee loolu la wax ndaysan def ñu loolu liggéey bu mucc ayib li nga xamanteni moy sécurité Sénégal ñu leen di jaajëfal. ñom ñi nga xamante bi nit ñi di nelaw ñoo ngi ci frontière yi ñoo ngi ci biir dëkk bi ñoo ngi ñuy garder ñun ñuy nelaw kon ñoo ñu kenn amul seen fay muy ñan ñi di police ñi di gendarmerie ñi di ñi nga xamante également ñom ñay militaire yi bàyyiwuñu benn yoon tay ji nag dañ ci gis loo xamanteni lu fës la mooy ñan mooy ñi nga xam mooy gàddu forestier yi waa eaux et forêt ñëw nañ tey ak ñëwin bu doy waar ñoom tamit ci li nga xamante ne mooy sunu défilé bi 4 avril bi mooy nekk nag li nga xamante ni c'est une date à retenir lii kenn dootu ko fàtte tey jii ci taarixu réew mi lii kenn dootu ko fàtte ci taarixu Thiès tey jii Thiès bi nga xamante ni mooy dëgg culture la ki nga xamante ni également mooy ñooy nekk waa service di jeune ñoom it kenn du leen fàtte ñu ngi ci liggéey liggéey bu am solo ren jii di défilé bi dañ leen cee jox benn cër boo xamante ni boo bu extraordinaire la cër boo xamante ni bokkul sa ak cër yéen lañ daan doon jox naam daag leen a yàgg nañoo def liggéey mooy ñi nga xamante mooy waa service du jeune di leen jaajëfal bu baax a baax bàyyi wuñu kenn jaajëfal également ñi nga xamante ne mooy le grand tambour major du ma ko fàtte mukk di lu ko wax moo ñoo Abdou Fall Thiotia ànd ceeg Adama mi nga xamante ni doom la ci magay jaag ñu naan ko Adama jaag jaajëfal ki nga xamante ni moom tamit mooy ñi nga xam ne ñoo yor li di wàllu fanfare muy policier yi nga xamante ñoo nekk camp tropical boobu léegi soo leen déggee ndeysaan sa xol dafay sedd Thiès delloo war na buum ca bay bay ba li mooy wane ne rek ndeysaan ñu lii lañ moom mooy dëgg culture lii la ñu am lii la ñu xam Thiès ndeysaan lii la xam ànd ko ñi nga xamante ni mooy waaye Baye Gana Kébé mooy académie bi nga xamante ni mooy ak excellence bi nga xamante ni kenn du ko fàtte fii ci diwaanu Thiès. waaw ndeysaan xale yi génn nañ fu nooy fi ñu génn mooy wayu Kumba Gawlo Seck bi nga xamante ni moom la ñuy wax la diva indi na loo xamante ni mooy bañ naa bañ naa benn loxo mooy takk sër mais benn loxo également mooy takk tubay moom la xale yi indi tey comme slogan ndeysaan dégg leen loolu waaye Aplex indi tey jii ndeysaan Kumba Gawlo Seck bi nga xamante ñu ngi koy ñaanal de passage yàlla yàlla yàlla wéral baat bi waaw waaw ndeysaan waa dégg leen bàkk bi jub na lii la Aplex indi tey jii waaw ndeysaan mu nekk lu mucc ayib nag ñuy fàttaliwaat mbokk yeeg xarit yeeg am di jàmm yi bii dafa nekk li nga xamante ni mooy sunu accession à la souveraineté internationale muy bis bi di 4 avril. doon loo xamante ni mooy sunu 63e fête de l' indépendance mu nekk lu mucc ayib xale yi nag génn foo xamante ni ndeysaan jaaxal nañu lool. li tax ñu ñëw ci ki nga xamante ne mooy Coumba Gawlo Seck mooy la diva la diva la ñu ñëw tey ji mooy benn loxo mooy takk tubay mais benn loxo également ñaari loxo mooy takk sër loolu la xale yi indi tey mu slogan bu doy waar xale yi après si ndeysaan waaw duma fàtte ba tey rek ñi ci àndaloon ci liggéey bi ñoom mooy madame Anta ànd ci ak ki nga xamante ni mooy madame Binta Gueye ànd ci ak ki nga xamante ni mooy madame Mathilom mi nga xamante ni l'infatigable la moom tamit duñ fàtte mukk du ko fàtte mukk ginnaaw saa su Aplex si jugee ñoom ñoo ñu ngi ci ginnaaw Aplex di ànd ak ki nga xamante ne mooy seen góor di seen mag di seen papa di seen directeur ñu koy woowee monsieur Moussa Valom di ko woowee Iwo également mooy surnom bi mu tegee lii en 2018 ba léegi école baa ngi gën a gën a jëm kanam. xool nañ li nga xamante ni moom la am ci ay résultats wu mu nekk lu doy waar am ko ci li nga xamante ni également mooy BFM mu nekk lu doy waar waaw waaw ndeysaan ñu ngi noon nag di tàggatoo ak li nga xam ne mooy xale yi aplex yi muy majorat xel dem ci kan du Ndiaye Coumba Rose ndeysaan li mooy Thiès waaw waaw li mooy culture ah di féliciter ñi nga xamante ni ñu ngi ci kaw turbine bi autorité étatique bi ñu ngi ci kaw politiciens yi ñu ngi ci kaw. gouverneur mi ngi ci kaw préfet mi ngi ci kaw ñi nga xamante aussi mooy commissaire mi ngi ci kaw ñëpp a ngi ci kaw li nga xamante ni mooy tribune bi tey jii lii mooy cees Thiès ndeysaan force de l'ordre yi ñu ngi fi di jaajëfal waa presse bi également ñoom it kenn bàyyi woon ginnaaw ñoom ñëpp ñu ngi fi tey jii ñu gis leen noonu ñu ànd li nga xamante ni moom mooy liggéey bi nekk liggéey bu mucc ayib di jaajëfal ñëpp ñu ngi jaajëfal ñëpp di remercier ñëpp waaw ndeysaan ba tey ki nga xamante ni mooy Adama Ngom waaw mi ngi noonu moom ma jàkkaarloo ñi nga xamante ni ñooy tribune officielle bi moom la Adama jàkkaarloo di daw ci magay jàkk ndeysaan waaye xale bi yàlla na yàlla wéri cër yi waay mi ngi noonu nekk lu am solo lu mu cayib la xale yi def tey jii ñu leen di saluer di leen jaajëfal bu baax a baax mouvement d'ensemble bi jar na yoon waaw ndeysaan ñu ngi noonu di feete li nga On ni senti victoire waaw ndeysaan ceeb bi bi jug na remercier bu merci beaucoup merci Aplex une section de la parole, une section des anciens combattants. Merci mon Bernard. Historique. Que la fête de l'indépendance du Sénégal. On vous l'avez dit, le Sénégal. le masque de fête un jour. Et comme vous le voyez, c'est un jour de bonheur, un jour de jour de communion, un come on, fête. está fazendo